diggante ak autorité yi pour régler lii laataa ngeen di tagga tembeel secteur bi fan la toll ak lan ngeen fas yéene def jërëjëf euh, Fedior ci sa question bi déjà ñun concessionnaires yi am nañ conscience que ne li ñuy liggéey service public la warul am interruption mais comme on naa coutume de dire à l'impossible nul ne tenu discussion yooyu ngay laaj je pense que depuis deux ans ngi nii musul am interruption ci discussion yi. fan moo ba am blocage alors. lan lañ wax ne ci ci loolu moo ko waral. ci loolu laay ñëw. Hmm. parce que xam nga tey jii comme ni ko amadu reconnaître léegi nii liggéey Sonaged ñëpp gis nañ ko di ko rafetlu. Hmm. donc loolu dafay wane ne effectivement gestion malit mi principalement ci biir capital bi Dakar rek lañ ko gënoon consacré. budget bi ñu ko nattaloon pratiquement sax xëy na à peine la doon mën a doy pour Dakar mm-hmm. mais xëy na le président de la République dafa am benn programme boo xam ne daf ko tenir à cœur mu tuddee ko Sénégal zéro déchet donc mu am ay ambition pour tout le Sénégal léegi boo xoolee mbalit mi ni ñuy intervenir fii à Dakar pratiquement noonu la ñuy intervenir ci capitale régional yëpp mën nañu ne un peu partout ci dëkk bi. kon donc liggéey bi dafa gën a yaatu accroissement bi dafa gën a yaatu kon donc ton de déchets collectés bi aussi dafay gën a yàqu dafay gën a yaatu parce que ñun boo xoolee bu ñu fay si à la tonne lañ ñuy fay. Mm-hmm. léegi effectivement li ñu naan boo doolee cere te dolli woo ñeex. amaana pour jàllale cere bi dina xaw a jafe. loolu laaj ñu dolli leen li ñu leen doon déedéet ñun ba léegi laajuñu ba léegi waxagoo ñun ñun ba léegi laajuñu ñu dolli ñu ñun liñ leen di wax xëy na structure bi nga xam ne moom moo yor gestion bi ñoom ñu dollil ko ay moyens parce que ñoom liñ ko sës ci ay ambition mu war koo réaliser ñun ñu ko ci accompagner ñun buñ ko ci gungee moom du am. donc moo ne leen yoratul xaalis buñ leen fay. mais bu yoroon xaalis fay nañu parce que ñun loolu la ñu jàpp parce que moom je pense que warul mën a am intérêt xam ne ñun ñooy ses partenaires privilégiés xam ne ñun ñooy préfinancé ñun ñooy def liggéey bi ci cappaandaw ga ba xëy na moom mu mën a am ay résultat yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi ciy teg seen bët mu yor xaalis te duñu fay te loolu aussi alerté woon nañ ko am na ñaari ñetti at si ginnaaw booy xool ànd nañ fi ak autorité Sonaged yi dem seeti waa direction planification budgétaire defaral leen un tableau wax leen ne kat fii ñu jëm nii il faudrait que moyens ñu yokk ko pour que xëy na du ñu egsi si lii. parce que engagement bu ni mel waruloon am ce travail là en amont avant que ñu ni engagé di liggéey ak Promojet parce que mënuloon dem ba ci digg bi on se avec euh, euh, des comme quoi dañ mënuñu fay li ñuy li ñu war a. non xam nga xam nga xam nga ñun lépp lu ñu mën mooy. kiy joxe liggéey am naa liggéey bi may joxe lancé na marché appel fu ñëw leen concourir mhm. donc da ngay jàpp ne kooku am na liy justifier moyens yu justifier liggéey bi muy santaane dina ko joxe nga ñëw conquérir gagné. mu dem xool xëy na qualité service bi mu bugg ko yokk mu seet ñeneen aussi ne leen kat ñii am nañ ay contrat mais yéen aussi ñëw leen en appoint ma defal leen ay ordre service. pour ngeen liggéey. ku lay woolu di la jox liggéey da ngay jàpp ne am na moyens yi lay fayee te léegi loolu aussi li koy indi. boo xoolee ren li ñu dal mooy budget wu 2023 bi. pratiquement dañ ko fayee boru vingt 2022 bi donc xam nga tout temps retard boobu di am di répercuté wu te at bu jot muy gën di yokk dafa ñëw nag ba ren pratiquement dafa mel ni li ñu liggéey de janvier ba fi ñu toll ni au mois de décembre ñu ngi koy liggéey mais budget bu ñu koy fay pratiquement amatu ci il est vrai que autorité yi effectivement def nañ ci ay effort pour jéem ko wàññi fexe ba fay boru mille vingt deux bi ba mu jeex tàkk mais actuellement nii nii ñun ce qu'on est en train de réclamer mooy que au minimum le premier semestre de l'année 2023 pour que ñu fay ñu ko intégralement loolu bokk na ci benn ponk boo xamante ni tax na ñu ñu ñu ñu taxawal suñu ay oto beneen ponk bi aussi ñu ne leen am na ay facilités yoo xam ne xëy na defaloon ngeen ñu ko par rapport ak institution financière yooyu mhm. mais ñun loolu amuñu si benn responsabilité il faut aussi ngeen fexe jox ñu un document bu ñu buy dox suñu diggante ak ces institutions financières pour que ñu xam ne ñun du ñun ñu amuñu si benn responsabilité pour balaa ëllëg ñu ci topp. Mhm. ensuite troisième mbir mi muy maanaam le second semestre de juillet au mois de décembre ngeen wax ñu nan ngeen ñu koy fayee pour le premier point nee nañ ñu suba mardi yaakaar nañ ne dinañ satisfaire point boobu mooy que xëy na dinañ fay le premier semestre à 100 pour cent. Mhm. ñu leen di ñaax di leen ñaan rek. effectivement pour que accord boobu ñoom ñu respecté ko. mu am ko respecté di ngeen. Euh, mais ñun loolu rek la ñuy laaj parce que dañu ra dañu ne ñun grève ñun grève ñu dañu ne arrêt de travail lañ def parce que amatuñu ay moyens pour continuer. donc il suffit que ñoom ñu defal ñu loolu xam nga ku liggéey un an di laaj six mois. bu ñu la joxee six mois pour nga mun a continuer say activité la preuve deuxième semestre bi bi ñu leen ko proposé dañ ñu ne loolu. attendons le 5 janvier pour waxtaan xool naka lañ leen koy mën a fayee xam nga waxuñu sax dinañ leen ko fay mhm. mais attendons le 5 janvier te ñu ñu ñu ñu ñu ñu d'accord ci loolu en tout cas soxla nañu daal mu décanté wu parce que euh, vraiment mbalit ndakaaru njaay xat na xataay boo xam ne <laughs> buñ ci boolee problème mu mbalit daal dafay